yàlla na borom bi subhaanahu wa taala suturaal ñu fi dunia suturaal ñu bés pénc allahuma amin ya rab lépp ci sutura la borom bi subhaanahu wa taala waaye mbokk yi ma ne amul ki gën a perte ki gën a triste mooy koo xamante ni sonn na ci kaw suuf subhaanallah ci ay julli ci ay koor ci ay jëf ju baax xañ boppam lu bari te yàlla rekk a tax muy góor góorlu waaye nag ñëw bés pénc gis nga montaañu tiyaaba yooyu yëpp fekk ni lépp perte na ko ndax lan mooy que ni subhanallah julleem yu bari yeeg koor yeeg yooyu yëpp waaye ndekete da doon bokkaale yàlla subhanallah da doon dem ci seetkat da doon dem ci gisaanekat da doon dem ci sàndikatu petaw te ku dem ci ñooñu boo jullee 40 jours yàlla soxlaw ko te nag bu la waxee nga gëm nekkatuloo jullit ñaata ci ay jullit ñooy dem ci ñooñu ñaata ci ay jullit subhanallah ñoom ñooy clignoter gauche waaye tourner droite Lol moy lan moy ne gem nañ yalla mais ñu yalla sa auto yang fa tak ay téré sa yaram yang ci tak ay téré sa loxo yang ci tak ay téré te yaangi nan iyyaka na'budu wa iyyaka nastain yalla yo rek lay jaamu te doy ngam waye di nax sa bop lol moy nax sa bop wala bok sa bir kër yaangi tour di rendi di tour deret di sacrifier fek yalla taxul kon nañ ci bàyyi xel mbokk yi avant ñuy ak borom subhanahu wa taala sino rek jëf jooju yëpp dañuy perte te safara lañ jëm yàlla nañ ci yàlla musal